nga xam ne le plus grand centre de vote à Kaolack pour les premières tendances c'est bon à préciser. moom moo fa jiitu foofu amul sa tendance Serigne Mbouba remporté. moo yenu élection xam nga Fatou Abdou. moom lu sax ñu dafa am ñetti yoo tax ñetti yoo xam ne mun naa tax Serigne Mboup gagné Kaolack Serigne Mboup moo nekk président chambre de commerce bu Kaolack et depuis lors mu fa sampee base am ba léegi bëtam teggeekuwul Kaolack demam dakkul Kaolack ay initiative am jógewul Kaolack. et boole ci ay innovation ak ay ambition yu loo ndaw ëllëg c'est important bi ci des mooy euh, ndongo daara bu ëpp xam-xam ñee cexi cexi foofa ëpp leen fa njëriñ itam ci wàllu doxalin ak wàllu démarche moo la ëpp xam-xam euh, usine boo xam ne at la tëj mooy bi defar ndima noonu mu ñëw jënd ko yeesalaat ko ak ñaata nit yu fay liggéey ndongo daara la waa Kaolack gën a mën a supporter mooy base bu cheikh al islam faydal faydal tijaniya mën nañu wax ko mën nañu ko mën a accepté koo xam ni mun na wax soxlaam ci anglais mun na wax soxlaam ci français arabe bi moom waxaale wu ma ko da koy wax ci bu baax buub mooy meilleur politique boole ci euh, dafa joxe benn benn stratégie ci politique boo xam ne sëñ Saliou ñuy jàng tubaab ñëpp mën ko jàng sëñ bu am na coalition te latewul kenn gis ko fenn c'est-à-dire que li mu laa bëgg benn objectif boobu la bëgg muy Kaolack tegul bëtam faneen defe naa ne bu amee kenn ku demee ak bañeeram bariwul xawma Bambilor la xawma ko tey bariwul mais Serigne Mboup ànd nawle Kaolack dong la yam mhm. donc lépp lu mu am ci Sénégal yëpp daf ko dajale pour gagné ne gañee euh, commune bu bu Kaolack donc vraiment bu ko gañee mérito na ko te Kaolack chance la ci ñoom parce que ci profil yi mënoo mënoo gis mënuñu am maire bu gën Serigne Mboup et je sais que il va changer Kaolack ah mais bien sûr boo duggee Kaolack ak cœur euh, de Kaolack ak ah, ah, initiative ah, yu rëy yooyu mu fay def. nga xam ne surtout la foire qu'il organise chaque année. loolu xam nga déjà c'est pour capter des capitaux au niveau de de Thiès Thiès également euh, très important.